waaw mbokk internet yi ñu ngi fii ci Liberté 4 ci 100 pour cent foot ñëw ci seen quatrième numéro ñëw tey nag mu nekk jour bu bu bu mémorable jour boo xamante ne tey euh, ASC Liberté 4 mooy organiser ses c'est 72 heures euh, depuis le vendredi samedi dimanche tey ñu ñëw seet si leen ci quartier bi xool. nu quartier bi di dundee nu quartier bi di sport nu quartier bi mel ah tey ñu organiser de tournoi en cadet en senior tey loolu lañ leen indil ci 100 foot. d'abord nous ngi l'organisation ñi organisation 72 heures Liberté Kati, qui muy l'ASC nga xam Abiblo, Habib président et ak mboolem équipe bi organisation bi parce que c'est important que ci période yu même ni, mu am des moments de communion autour de la jeunesse rawatina bu faites que nous am ay autorités yo xam ñi mon xam autorité politique la mon xam autorité sportive la parce que tay parrain wu 72 heures yi monsieur Tamsir Soxna bi nga xam ne ñi ngi ñaan yalla mu donne aussi député à l'Assemblée nationale gëna mëna taxawal gox bi lolu day nekk suñu fierté nous avons aussi Mustapha, nga est champion d'Afrique Nous mu nekk aussi lu ñu Nous la ñu am ay jeunes yu chers, nous des nous ñoom ñi vraiment dafa comme nous avons yàlla daf ñu Liberté bu ñu boolee suñu day nous lu gën ci bi féliciter man dina dolli ci participation parrain bi dina jox ñaari équipe yépp ku nekk jeu de mayo bolé pour euh, l'équipe gagnante enveloppe 100.000, l'équipe bi ci top enveloppe 50.000. ñu tek ko ci li parrain bi merci madame le euh, ministre merci. Madame le ministre je pense que nous parrainer heures de Liberté 4. Donc, on est là avec euh, Mustafa, NAM, donc euh, international euh, Alénia Kempes nous avons délégation 72 Liberté 4 vraiment pour remercier les pour confiance pour nous euh, présider la final vraiment nous remercions.

autorité yi fi parce que c'est pas évident ak euh, ñi organiser tournoi bi ma leen di di leen euh, remercier bu baax parce que lii dafa baax si si quartier ëllëg ñi ñooy doon relève bi donc di leen encourager bu baax a baax rafetlu na lii bu baax euh, di remercier aussi si si invitation bi parce que c'était pas c'était pas évident aussi parce que ça fait plaisir aux enfants comme ni ma ko waxee ñoom ñooy ñoom ñooy place ëllëg Dylan les encourage, Dylan les surtout que la finale est bien jour, Nous jouons avec la discipline et le fair play. Nous des adversaires, mais nous avons des ennemis. nous avons des l'autorité de l'Union. Si nous aussi, l'équipe euh, vainqueur enveloppe 100 000 francs, l'équipe Bignac, enveloppe 50 000. Merci. waaw mbokk internautes yi comme ni ma leen ko waxee ci introduction bi ñu ngi fii ak euh, Cheikh Dème euh, dëkk Liberté 4 euh, di cap di capitaine ancien capitaine ASC Liberté 4 tey nag ñu ñëw def ak moom 100 pour cent foot donc fii ci Liberté 4 ci 72 heures ASC Liberté 4 bi tey ñu ñëw waxtaan ak moom donc ci ci ci ci ci am xam nga nu mu def nu mu bu fu mu commencé ci football ak ba tey fi mu yegg si tey tey ñu bàyyi ko mu mu nuyoo. nuyu ñëpp di sant ñëpp. waaw rafetlu jotaay bi. invitation maa ngi koy rafetlu bu baax waaw man Cheikh dem laa tudd Cheikh Alassane Deme laa tudd dëkk Liberté 4 waaw di doomu Liberté 4 waaw. waaw euh, ñu ngi lay ñu ngi lay fay tey. ñu buggoon la laaj yow depuis depuis kañ nga ko nga tàmbali football sa carrière depuis kañ la tàmbale par rapport ak ba tey fi nga yegg tey sa jaar-jaar ci ci ci ci football waaw nawetaan ba fi nga yegg si tey waaw Lors de la am mbégte pour wax ci mën naa ne képp koo xam ne Liberté 4 xam ni euh, quartier football la fii laa tàmbalee école de football Abdou Ndiaye fii laa tàmbalee école de football Abdou Ndiaye ba cadet fii a rejoué, j'ai fait senior maa commencé senior fii 2011 moo doon sama première année senior La fi 2011 2012. 2013 après 2014 ma génn dem xaal yoon euh, après ñibbisiwaat boobu ba légui génnuma ba daw daw la jot a génn dem jouer ji yeltare waaw joué naa aussi tamit championnat maa ngi commencé 2011 boo seetee laa commencé sax championnat junior. ñu wax ci sa si circuit euh, sa cursus nawetaan tey par exemple joué nga fi cadet joué fi senior xam nga tey nga nekk euh, capitaine tey mën naa ne li fi takk at yi nga takk capitaine. Euh, bëri na te mën mën naa ne benn benn benn la fi bu dul Adama Sankare donc yow euh, capitaine bi yàgg na sa loxo tey ban ban taxawaay nga am tey ci quartier bi ba quartier bu toll ni Liberté 4 dénk la dénk la seen brassard. waaw a ah, mën naa ne boo gisee euh, comme ñun moom dañuy roy ci ci yéen waaw comme ni ngeen amee jaar-jaar ci ci koñ bi am jaar-jaar bu rafet ñun dañuy xool ci yéen xam nga ba tax na lépp lu ñu doon def ci koñ bi rek. dañ koy xeeb dañ koy def ak amour ak xol parce que fi lañ dëkk suñu famille ak ñëpp fi lañ dëkk moo tax moo tax lépp lu ñu dugg rek ci koñ bi boo seetee moom dañ ciy dem à fond quoi waaw dañ ci dem à fond. donc ñu capitaine nag ci koñ bi xam nga def nañ fi maanaam loo xam ne ni gars yi kontaan nañ ndax de jël nañ fi loo xam ne peut-être sax peut-être ñoom aada ak yooyu gars yi sax amuñu chance jël ko def nañ ko fi xam

waaw non du dara du dara du dara boo seetee ya, lu jox leen cër rek jox leen cër respecté leen xam nga samay raq ñoo xam ne war naa leen conseil ma conseil leen comme samay mag ni ñu ko doon defeek man rek ba tey jii nii mu waral lii xale jox la cër respecté la xam nga loolu la rek amul leneen quoi loolu la rek peut-être tamit xam nga waaw am na lu ñu gis ci man tamit ba peut-être xam nga ñii naan dañuy roy Cheikh wala Cheikh da leen neex wala genre yooyu noonu quoi waaw. donc ñu gis na rek euh, depuis depuis 3 ans 4 ans yaa ngi ci ci bi ci championnat bi di jouer donc ñu mënoon xam nag sa jaar-jaar tam ci ci ci club championnat yi nga jaar yi nga jotté jouer ba ba ba ba ren. waaw club yi mo jotté jouer championnat yi mën naa ne jaar na ci division régionale Africa Foot xam nga jaar na Duc Junior jaar na Renaissance de Dakar jaar na HLM jaar na Port. waaw jaar naa équipe yooyu quoi joué naa tamit jaraaf euh, bo jaar naa fa challenge bi joué naa fa tamit quoi. ñu gis ñu gis ne depuis deux ans tu es ci championnat ba ren nga am ñu booleel ci onze onze onze onze Ligue bi donc loolu loolu satisfaction la loolu mu ngi wane ne yow yaa ngi ci liggéey bu am am am solo tey lan nga ñu mën a expliquer loolu loolu loolu tey euh, distinction yooyu nga am noonu ba ñuy boole la ci ci ci onze onze Ligue 2 bi. waaw liggéey rek parce que ñun moom lu ñu liggéey xeeb ko quoi lu ñu liggéey xeeb ko te suñu ambition sax mën naa ne du lii quoi lii mën naa ne jaar-jaar la rek mënul bañ a ñàkk quoi waaw ñu naan liggéey rek fayeeku xam nga waaw liggéey lañu liggéey nag moo tax xam nga waaw suñu njort sax weesu na lii ñu ngi ñaan yàlla affaire yi gën a kawe suñu njort quoi waaw. waaw léegi lan lañ mën a xaar ci Cheikh dem fii ak déwén ce championnat bi ndax day delluwaat port wala day day day outil club Ligue 1 wala quelque chose que ndax am nga ay contact yo xamante ne ah, pare nañ pour pare nga pour dem fa wala yaa ngi pare voyage wala yaa koy lijjanti quelque lan nga ci mëna mën wax ci loolu. waaw man port moom mën naa instant yi sama contrat jeexna na waaw léegi ñi ngi xol peut-être euh, tamit waaw bala saison bi inshallah mën nañ am club championnat parce que loolu lañ bëgg quoi bëggu ñu sax desaat ci Ligue 2 bëgg nañ xol Ligue 1 bi waaw suñu objectif daal loolu la Ligue 1 bi après waaw jéem a xool nu ñu voyager quoi genn dëkk bi. noo gisee initiative bu président Habib Lo bi nga xamante ne moo organisé 72 heures ASC bi xam nga mu du mu nekkoon 3 euh, jours ñu gis culturel ñu gis ci sport tey yan yan sentiment nga ci am. waaw di ci kontaan di ci kontaan bu baax a baax ndax mën naa ne lii nii sax ñëpp jaar nañ ci xam nga initiative bu rafet la day dundal koñ xam nga di ko di ko rafetlu bu baax di kontaan si moom ci. geste bu mu def waaw ñu koy rafet lu baax di ñaan yàlla affaire yi jëm kanam xam nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen quoi. waaw le mot de la fin lan nga ñuy wax par rapport euh, ak euh, ak euh, ak émission bi 100 pour 100 foot yi nga xamante ne ñoo fi ñëwoon tey ñëw seet si la ñëw tam assister 72 heures ASC Liberté 4. waaw 100 pour 100 foot moom lu may wax si ñoom mooy di kontaan si ñoom di rafetlu bu baax lu ñuy def mën naa ne lii dina day tax sax xama di gën a jàppale joueurs yi waaw di ci kontaan bu baax a baax. ndax lii moom baax na ci quoi mën naa ne bu bu yeneen amoon comme yéen ni ngeen def nii moom mën naa ne dëkk bi dana gën a baax quoi waaw di ci kontaan bu baax di rafetlu émission bi xam nga di ñaan yàlla li ngeen ci bëgg euh, yàlla na ko yàlla defal xam nga waaw yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko daal waaw. waaw mbokk internautes yi 100 pour 100 foot la woon euh, ci 72 ASC Liberté 4 ak Cheikh Deme donc ñu recevoir woon ko waxtaan ak moom par rapport a carrière am ak nu mu gisee initiative président Habib Lo teg. waaw mbokk internet yi lii lañ leen indiloon tey ci 100 pour cent foot ñëwoon Liberté 4 ñëw ci 72 heures ASC waxtaan ak euh, le capitaine Cheikh Dem bi nga xamantene mom moy euh, le le mi ngi port autonome de Dakar bi nga xamantene mi ngi dëkk Liberté 4 euh, aussi jël nañ Moustapha Nam madame le madame le ministre Zara Iyane Cham ak le président Habib Lo ñëw jël sam ci soxna ñewon ci ci 72 heures AC bi donc fi la doon fi la doon xewé ci 100 foot ci Ops TV di len remercier di len dox dajé dans 15 jours ci benen numéro fi ci 100 foot ok merci.